مصطفى وعلى آله وصحابته ذوي التمكين والصفا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفا مبكي جولي يتد في دجي في جدك بتد بي دي سانتي مامون دومبي ci diggante ay góor ak i jigéen ëmb ay mag ak i ndaw boole ay xarit ak i soppe dajale ay wëllëre ak i bokk lamboo ay boromi xam-xam ak ay ilimaan ak ay muqaddam ak ay notable yéen ñëpp maa ngi leen nuyu ci seen tur ci seen sant ci seen jëmm nuyoo bi gën a tedd gën a sell gën a yell ma tibbee ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yi muy asalaamu aleykum wa wa barakaatu. di wuutu ci nuyoo bi suñu rakk yu tedd yi ñi ànd ak alxaaji ahmad ñas di doomu suñu baay ja alxaaji Mouhamed Niass jiite leen ak Cheikh Mouhamed Niass ak njaboot ak Baye Alaaji Sëtu gi toog ci sama ndeyjoor wuutu ci njaboot ak suñu sëriñ dara daara Cheikh Mouhamadul Ghali Cheikh Mouhamadul Bachir jiite leen ni jël seeni nuyoo yépp teg ko ci loxol ilimaanu dëkk bi mu yóbbuwaale ko ci dëkk bi yëpp ak mbooleem aima yu nekk ci tund yi muy imaam alxaaji njaay ñu jël seeni nuyoo yëpp teg ko ci loxol borom dëkk bi Ahmed Dieye mu wàcceel ñu ko yéegalal ñu ko ci mbooleem borom dëkk yi fi dajee yëpp nuyu muqaddam bi nekk ci dëkk bi di ku baax ku tedd waaye tamit jagleel nuyoo ndaw yu baax yu sawar yi nekk ci biir dëkk bi ak ñi nekk ndakaaru mbaa ñu nekk ci yeneeni dëkk ak ndaw yu sawar yu baax yi nekk bitim réew ñii ñi leen di fekk Italie ñii ñi leen di fekk fu mel ni Espagne ñii ñi dem ba fekk leen fële ca Grèce tabaarakallaahu ak yeneeni ndaw yi sañ ci Mamour yi tasaaroo ci àdduna bi di liggéey ngir suqali seen réew ñoom ñëpp seen nuyoo tabaarakallaahu maa ngi koy teg ci loxol sëñ daara Cheikh Modou ak Ibrahima Mbaye al oustaz al alim al allama ñu wàcceel ñu ko ci mbooleem ndawi sanc maamu fuñ mun di nekk ci àdduna bi politiciens yi fi dajee yëpp ak ñi yëngatu ci wàllu état ci anam gu mën a doon seen nuyoo ñu teg ko ci loxool suñu xarit suñu soppee Modou Mbaye mu partageel ñu ko ci ñooñu nga xam ne ñoom la séq géew bi gannaaw nuyoo yooyu yëpp ñooña yëkkati fukki junne joxe ko mu ne leen li ngeen bëgg fukki junne mënu ko man fetal laa yore goo xam ne ku may wax soxla yaay indi bal bi ma la ciy sooxal su fekkee danga ngaa andi ba ma defal la ci boo indee balab cokeer ma defal la ci boo indee balab tabaarakalaaw buy rey gaynde tamit ma defal la ci waaye yéen seen fukki junne yi mënul dara ñoña kot koti waat yëkkati cinq cent jox ko ko mu ne dem leen li ngeen bëgg dana am dana ko daan ba tok ci kaw nam ko waxé won ba bëré ba ñëwé nona mu ami waxé ko noonu ko yalla defee koku moy kiñ tuddé tay bismi dini to alquran dini to yalla ñaareel bi ñi dara jalé ko tuddé ko alhaji baram jaw dini to alquran dundam lepp ni ko mbokk yu baax yi waxee mi ngi ko jeexal ci jukki bi jàkka ji jàtti ji mbokk bi ci la jeexal dundam gi yëpp ñi ko seede seede ko ci wa shahida shahidun min ahliha lim jeexal ak dundam doomam suñu xarit suñu soppe al oustaz al imam ñew taxaw firndeel ne ñun de amuñu lu gën alquran kon bu ngeen ñu tuddé bis bi di bisab alquran dañ leen di delloowaat alquran rek kon al ustaz babakar def nga li yaaram yi wax ne a'taytal alqawsa bariha wa wa askanta dara baniha def nga li mam Khalifa ñas defoon keroog di xaadimu rasul si Ahmad Bamba yónnee Masamba sen. nekkoon Alaaji Abdoulaye Niass mu ne ko ca daaraan laa nekk ca Koosi mu ne ko loo foog ne su ma ko ko defalee ki dana ca bépp mu ne ko loo ko jox mu joxe ko ba mooy alquran Serigne Touba yëkkati téeréeb alquran tafsirul jalaal lay ni jox ko ko ne ko joxal ma ko Alaaji Abdoulaye Niass dana neex yàlla mais dana naqari seytaane keroog ba mu ko ko joxee maam Alaaji jël téere ba ne ki la jox li gën dafa bëgg nga gën alquran lay li lépp jox na ma ko bëgg na ma gën ñëpp kon yow sama doom sama taaw boroom xam-xam yi boroom yi maam Khalifa ñëwal nga bàkkal ma Serigne Touba santal ma ko ci ngëneel yu rëy li ma defal def ko nag ay way na nga sàmm wilaaya ga sàmm wante la mën wayam ga ci maam Khalifa ne aska salaamin ka taami suhdi bi raaxi yanuubu an na wisaala raaxi bi raaxi أزكى سلام من كريل مسك نفحته معطرا بنواحي الشيخ الفواحي شيخ تقي نقي عيلم علم فما ثنائي بمطريه وأمداحي أتحفتنا بكتاب لا نظير له أروى غليل صدانا بعد اللواحي هو الجلالان تفسيرا لمنصبكم مصباح علم كضوء صبح اللماحي loolu kon jotaay ak tay bii dafa ñuy fàttali ko jotaay bu yàgg booba déggee nañ ci sëriñ daara Cheikh Modou yal na yàlla yokk leeram mu ne alxaaji Biraan Jaw yàlla mayoon na ko ci alquran ba ku ko diis soxla bu mën a doon aaya bi mu ko fekk mu mujj a jàng rek la lay bindal ne la naanal mbaa nga sagoo sa aajo faju mu ne benn bis dafa am kuñ tëj kaso mu ñëw yónnee ci moom fekk muy jàng xuduuhu fa xulluuhu sumal jaxiima salluuhu aaya jooju la ko fekk te xam nga aaya jooju li muy tekki ak mbir mi dëppoowut mu bindal ko ko rek ne ko demal jox ko ko mu sangu bañ ko mën ko sangoo rek génn ca kaso ga te xuduuhu mooy firi ko bu paree ngeen gax ko taalal bi ku tàbbal ko ci biir safara si loolu niróog naa kaso gam nekkoon waaye alxuraan amul rek lii la dëkkandoor di jëriñ ak mbokkam ma bu seen dëkkandoor ñaawoon da ngeen digalante ay tool di tibbante ay tànk amul kenn na ci yéen ku tuddee moromam bis bi kon lii yal na sax yal na dolleeku yal na gën a jëm kanam waaye jërëjëf sëñ daara Cheikh Modou yal ndaw yi sañ ci Mamoud yëpp ci dawaayir yi fi nekk yëpp yàlla mën a taxaw kum taxawu da nga taxaw yal na yàlla taxawal leen yàlla mën a sàmm kum sàmm nga ñoŋee yal na yàlla sàmm leen yàlla mën a aar yal na yàlla aar leen yëkkati leen ba ñëpp seen leen mu téye leen fa te yàggal leen fa loolu la daan maam xarit fay ñaan bu xalaat seet daal doo ko mosoon a defal dara bis bi nag dañ ciy fàttaliku yëpp ni ko mbokk mi waxee Ousmane Ndiaye ak Birane Ndiaye ñoom ñaar ñii ñoo sos bis bi 2005. Lamine ñëw ne ma dañuy sàkku nga ñëw ñu conférence ca sañ Maamu Ndumbe boobaag léegi ren la fukki at ak juróom-ñaar ma ne leen yéen da a am kilifa man tamit ma am kilifa sañ ci Maamu Ndumbe dëkkab sëriñ daara Cheikh Modou la dem leen ca moom ngeen tàggu ko ñaan ko ndigal bu leen ko joxee man ma dem ci xalifa bi Mawlaay Alxaaji Omar tàggu ko ñaan ko ndigal buñ leen digalee ñu digal ma ma door a def li ngeen bëgg ñu dem ci sëñ daara Cheikh Modou tàggu ko wax ko ko mu sawar ca lool ne leen maa ngi leen di seedeel ne su fekkee yàlla rek a tax ngeen def ko dana sax dana dooleeku waaye yaakaar naa ne boobaak léegi fukki at ak juróom-ñaar at bu ñëw gàccaal mu féetee woon gannaaw kon loolu grâce sëñ daara Cheikh Modou ma dem ci Mawlaay Xalifa Alxaaji Omar ñaan ko ci ndigal mu kontaan ci bég ci ñaanal ma ki jox ma ci ndigal ndigalam loolaa tax bis bi bu jotee su ma mënee ñëw su ma mënul tamit danaa jéem las-las yi ba ñëw ngir saxal a loola kon nag ñaari nitu yàlla yi joxe ndigal ci bis bi dëgg-dëgg seen ndigal barke ba roogaat na feeñ na jeexital na tamit ci bis bi yàlla na gën a jeexital ci mbooleem ñu ko wootee yàlla na gën a jeexital ci mbooleem ñu ko wuy si Maodo bi nag moo tànn boppam yéen tabaxal yàlla néeg bu toll nii defee ko ci dëkk bu toll nii ubbi ko bis ni ki tey ubbiwaat ci teewaayu mbooloo mu tedd nii nii bi nag buñ koy tabax dara jiitu luñ cay defal yàlla lu ëpp julli moo tax kon mawdu bi mooy assalaatu julli moomu mooy ñaareeli ponk ci shariatul islamiya ponki ponki ponki lislaam yépp ni ko yonent di jàngale jibril juróom la tudd baatu seede bi moo ci jiitu di ko ñaareel mooy joxe julli juróom yi lislaam yépp ba ko yàlla namee farataal jibril rekk la yónni mu fekk sayyiduna muhammad ci kaw suuf jox ko message ba yonent bi partagé ko ci xeet wi ba mu mooy julli ba mu namee farataal julli moom dafa ne yow jibril jëlal daxa ba ñu tuddee buraq gaawaay ba muy bët ba nga jëlal di ma sama soppe bi mu ñëw ba ci baytil maqdis yeew fa daara ba ja miraaj ñëw yëkkati yonent bi mook moom ba mu jéggi juróom-ñaari asamaan yi mook moom ba mu passé maanaam sidratul muntaha ba mu yegg foofa jibril ne ko man nag fii laa mën a yem ndax mooy daytalu waa kaw waaye mooy daytalu waa suuf yonent bi continuer ba gisee boromam mu yëkkati julli juróom fukki julli jox ko ko muy wàññi lu ba mu des juróomi julli sama borom ne ko coono ba lañ wàññi waaye payoor ga dara wàññiwuñ ko ca ku joxe juróomi julli ñi fay la payoor ku julli juróom fukki julli man jaa bil hasanati fa lahu ashru amthaliha te la jiitoon le yeneen yi ci des ci kaw suuf baatab laa ilaha illallah li muy foor foor di premier ponk yenentu bi jël di ko pratiquer di defar pas yi diir fukki at yu teg ca Makka yooyu yëpp ba ko yàlla na mee farataal Jibril la ñëw rek ne ko sa borom nee na fax la man lahu laa ilaha illallah bu ñaareel ba biñ na mee farataal oor weeru koor Jibril la ñëw ne ko sa borom nee na kutiba alaykum siyaamu kama kutiba alladina min qablikum laallakum tattaqun dem xataa biñ na mee farataal sax joxe asaka Jibril la ñëw ne ko sa borom nee na xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bihaa dem bim na nee farataal sax aj makka jibril la ñëw fekk yonent bi toog mu ne ko sa borom nee na walillaahi ala nnaasi hajjul bayti man istataa ilayhi sabilan dem waaye bim na nee farataal julli foofa jibril amul fa accès yàlla yonent bi direct mu yëkkati juróom fukki jullee jox ko ko yonent bi indil ñu ko fii tabaarakallaahu njëkk a julli tusubaar teg ca takkusaan teg ca timis teg ca gee teg ca suba bu ko defee jibril wanal ko waxtu rek muxtaar maag daruuri ba ak nuñ koy doxalee yëpp door a dem kon julli mooy farata yoo xam ne yàlla yonent bi direct keneen ko moo ko mu fàtte ñaareel bi julli moo gën a màgg ci mbooleem jaamu yi ñuy jaamoo yàlla gannaaw tuddu ba ko sere bi julli ci dara mak julli na jamu yalla go xamne ne boo ko defee def nga lepp boo ko defee julli boo boo jullee julli nga en même temps yemu ci be wor nga joxe nga asaka aj nga màkka waye timit woor nga weeru koor jàng nga alquran manam sabba nga yalla magal nga yalla jox nga say dëkkandoo kon mboolem ibaadaat yi ñu yàlla sant yëpp yàlla far na ko dëgëral ko ci biir julli boo ko defee def nga lépp ku julli woor nga woor mooy lan bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jotee fi fajar xaree ba jant bi so yow ba ngay julli fi nga kàbbaaree kàbbaaru xarmal ba fi nga sëlmalee lekkoo naanoo jotee woo kon nag fi nga kàbbaaree xarmal mooy xalu fajar fi nga sëlmalee mooy jant bu so la la xewoon ca koor ga xew ci julli gi boo lekkee mbaa nga naan koo yàqu boo lekkee mbaa nga naan tay ko julli yàqu waaye boo jullee tamit ala kulli xaal joxe nga asaka asaka mooy lan génnee ci sa alal gannaaw bi matee nisaab ci kexe muy wuru sa xaalis mbaa mu mat nisaab ci juri yi diggante xar bay nag jëlee wala mu mat nisa ci mayte fi maa leen ko mu ñaar fukki xet yoya bu matee nisa nak nga do la génnee la ca war ca asaka ya joxe ko ca nak ya bu matee falwer wala ñeen fukku ca tabia ba musina ba bu dee tabarakallah xar yaag bëy yaag giléem yaag ba commencé ci giléem yi juróom yooyu yëpp bu dee nak ci xaalis bi la muy kexe gi buy wurus wi ak maanaam muy dinaar beeg dirham yi yemuñu yemuñu poids boo jëlee dirham bi quatre-vingt-cinq ci or lay tolloog boo ko doon wàccee ci CFA un million deux cent lay toll. boo ko jëlee nag ci xaalis bi ñaar téeméeri dërëmi yoon boo ko wàccee ci galwaa bi ay huit cent mille léeg-léeg mu wàcc ba sept cent mille foofu la toll muy muy muy muy nisaab ba waaye yow nag bi nga demee génnee asaka génnee nga asaka ñu gën foor xaalis jox ko ñu gën yaatu. juróom-ñetti xeet yi alquran tudd ne innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ba ca aayaat ya yow asaka joo génnee mooy jàmm da nga lancé jàmm tudd ko ne maa ngi yëkkati asakaay jàmm jox ko mbooleem jaame yàlla yi ma daan di julli ak ñi ma sendoor ak man di julli ak ñi nara julli ba bay àdduna bi tukkee moo ba ngay nga ne alayna wa ala ibadillah wa ala ibadillahi saalihin kon asaka ji nga génnee ci julli moo gën a foor asaka ji nga génnee ci asaka moo xam ci kere moo xam ci juni kër moo xam ci mbayteef ñi ngi ko jox moo gën a yaatu juróom-ñetti xeet yi alquran waxoon nga jox ko ko ba xasru ko ci innama nga xam ne ku bokkut warul mën a dugg ku bokk tamit warul mën a génn waaye yow nag ku la moo sa jiitu ca aadama di julli ba bi ngay waxee asalaamaaleykum jël la ci asaka ja waaye képp kuy jullee ndoor ba ba ngay dee jël na ci asaka ja ku nar a jullee ci ba bay àdduna bi tukki rek dugg na ci assalaamu alayna wa ala ibadillahi wa ala ibadillahi saalihin kon jooju asaka moo gën a yaatu téeméeri junne yoon te moo gën fukki yoon ndax alal li muy a alaloo waaye boo amee jàmm ci ngay door a tal alal tal njaboot tal sa diine tal say leneen waaye bu jàmm amul moom soxla sa benn rek lay doon uti jàmm door a ut leneen loo mën a soxla kon asakaay julli moo gën a foor asakaay asaka yi ñuy joxe waaye li ngay julli tamit aj nga màkka alxajju luxatan li muy tekki mooy alqasdu charan nag mooy alqasdu ila baytillahi alxaraami li adaayi faridati lxajji yow nag bi ngay julli jubluwaay yépp yi wan ko gannaaw yi ngay joor yi nga wan ko càmmooy jël benn jubluwaay kese dëgmal ko muy kaabatal musharrafa ndax foofa la réseau bi moom la alquran ne fa walli wajhaka ma kuntum fa wallu wujuhakum ndax kaaba googu ñu ñuy dakkaloo mooy yaayu ak jumaa yi Ibrahim bi kaaba gi ba pare sama borom ne ko id yarfau ibrahimul qawaida min al bayti wa ismailu kaaba ga mu des karaawaay ba sama borom ne ko jóor mu ne fan laa tuuri mu ne ko tuurloo ko a dara jël garaawaay bi nga ja nga jàng ko ci pegg kaaba gi tabax ko fa ba nga ko fa bàyyee baar ba guddi sedd sama borom yebal malaaka mu yenu ko tasaare ko ci adduna bi fépp fu xeeru mag daloon balaa àdduna bi tukki dañ fa tabaxal yàlla néeg muy jumaa fépp fu xeeru ndaw daloon balaa adduna bi tukki dañ fa tabaxal yàlla muy jàkka moo tax jàkka yi ak jumaa yi di ut kot seen kot ba mooy dàkk kaabatal musharrafa mi nga xam ne foofu la ñu jëlee seen réseau yi moo tax kon sañ ci maamu Ndumbe gi alhamdulilah xeeru mag dal na fi ñu ngi nii ci suñ càmmooñ moo taxoon tey jumaa ji mu ngi nekk fi kon boo jullee joxe nga asaka boo jullee woor nga boo jullee tudd nga ba maanaam boo jullee maanaam joxe nga asaka waaye tamit aj nga màkka woor nga xatta sax tudd baatu seede bi ndax ba ngay liqaam wax nga ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi ba ngay taaye wax nga ko tabaarakallaahu kabbaar yi nekk ci biir muy allahu akbar yeeg allahu akbar boo ko tàllalee nga farañ fànce ko rek laa ilaha illallah rek la lay jox kon boo leen ñeenti ponki lislaam yépp bi nga jullee def nga ko waaye yemoo ci bi nga jullee jàng nga alquran jàng nga juróomi julli yii fukki fatiha ak juróom-ñaar jàng nga ko ci bis bi ci julli jàng nga fukki saar ci bis bi mun ci alquran wala nga def ko ay ayat boo remplacé saagee ci ay ayat kon jàng nga alquran mais bi ngay julli sabbal nga ñaata yoon nga sabbal ci subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhaana rabbiyal azim ba ngay ba ngay julli nga yàlla ko ci allahu akbar waaye bi nga demee ba nga xam ne yaa ngi julli ñaan nga ci biir asalaamu alayna bi nga demee bay julli tamit jokk nga say dëkkandoor yi la féetee nday door ak kanam ak moo tax ba nga demee bay génn ci julli bi nga ne asalaamualeykum jokkee ko sa dëkkandoo yi la féetee nday door ak jël ko yi la féetee xibla ak yi la féetee càmmooy kon booy julli def nga booleem xeeti jaamu yàlla yi yàlla nag ku bëri yërmande la wallaahi bu jëlutoon jaamu yàlla yi daxañ ko ci biir julli ñu bëri perte ndax jullit ñu tey actuellement mat nañu milliards ak juróom-ñaari téeméer yu teg waaye ak li ñuy bëri bëri bëri boo ci jëloon ñi nga xam ne ñoo ci aji makka matul 10 pour cent ci biir jullit ñi waaye ñooña bu julli nekkutoon bu asaka nekkutoon ci biir julli ñi perte maanaam bu aji makka nekkutoon ci biir julli ñi perte waaye yàlla ne yëg naa ne maa santaane aj mais ñëpp mënuñ ko def moo tax kon ma jël aj dugalal lépp ci biir julli moo tax kon euh, boo jëlee julli ñëpp 10 pour cent yi ci aji ñu ko waaye tey bañ julli rek aj nañu waaye mu jël tamit asaka asaka ci tay li fii ay jullit milliard ak juróom-ñaari téeméer du teg wallahi ñi ci mën a am nisaab di joxe asaka boo ko xoolee lépp matul 30 pour cent yàlla de jël naa asaka dugal na leen ko ci biir julli bu ci nekkutoon ngeen perte or weeru koor boo jëlal jullit ñëpp ñi nga xam ne ñoo mën a woor ci commencement ba duñ jeex ñii ngir mageexuñ ñii ndawexuñ boo ko jëlee lépp ñu jullit ñi bëri bëri matuñu 60 pour cent su ko defee tamit yàlla jël tamit or weeru koor dugal ko ci biir waaye bu loolu amutoon ñi mënta woor perte bu loolu amutoon ñi mënta jox aji màkka perte bu loolu ñu man ñu mënta joxe asaka bu loolu amutoon ñi ñi mën a woor tamit yooyu perte yàlla jël lépp dëxañ ko ci biir biir julli yi waaye gis nga tamit bu ci bu ko dëxaloon ci am na fi jullit ñoo xam ne wallahi kaamil bii dañ ci juum rek bu ñuy jàng lu jafe la waaye boo jullee foog nga jàng alquran waaye tamit bu ko def rek yaa kaabaal yaa ñu bëri perte waaye gis nga ko tey ñu ngay man def loolu lépp di ko dugal ci biir kon yàlla daal ku bëri yërmande la waaye gis nga julli sax xeex naag juróomi ponki lislaam yëpp daane leen ba mu mooy tudd baaxu seede bi rek la julli mënul daane julli daane na war koor fuqahaawu maaliki yu ne yëpp d'accord nañ ne boo wooroon ba digg bëccëg nga jub ba nga jël tisbaar mbaa takkusaan mënoo taxaw te taxawul ko noonu xiif mbaa mar sharia may la nga lekk ba mën a taxaw wala nga naan ba mën a taxaw bu pare nga continuer sa koor gi boo demee ba weeru koor yi passé nga fay fan booba kon yàq nañ koor ngir taxawal julli tisbaar bu war a joxe ba takkusaan waaye tamit boo fi amoon alal mu nekk nisaab par exemple mu ñàkk téeméer dërëmi yoon nga ne suba laa war a génnee asaka te yow li fi yore yëpp un million quatre cent rek la boo ko jëlee ci dinaar mbaa muy huit cent mille kese boo ko jëlee ci dirham ba ala kulli haal nga téye ko bañ ne suba nga war a génnee asaka ci ngay mat atam géej jot wala tusubaar ci tay wala timis amoon ndox moo jàppee charia may na la xaalis boobu. nga waroon a génnee asaka te maanaam mu mat nisaab te atam ma jotagul nga jël ca génnee ca asaka dem jëndi jël jël ca asaka ga dem jëndi ndox te boo ca xasee jël matatu su matatut nag dañ koy mottali xaaraat ba leen ñi ñu door di ko génnee mais dutul doonante ren kon asaka ñu waroon a génnee ren njàppal gexe wala tusubaa wala suba yàq na ko tey ñu leen manqué kon julli daan na maanaam kon daan na maanaam asaka julli daal na sax aj màkka bu dee ci fuqahaa maaliki yu ne yi ne nañ képp ku nar a aji màkka bala ngaa dem fokk nga faat waxtu ci sa yoon wi aj màkka moom wàcc na la ndax Malik nanguwul ñuy julli ci avion bu fekkee xas na décollé mais bu décollé bu mën ngaa julli ci kawam ndax li ngay julli dafa war a taxaw suuf yeneen masaahib yëpp nag xanafi yu ne yi xanaabilu ne yi saafi'i yu ne yi ñoom ñëpp dagal nañ leen julli ci avion ba boo demee ci air saoudia sax dafa am jàkk ci biir air bi bu jotee iliman taxaw ñëpp julli mais Malick moom d'accord ci te mu ne boo naree faat waxtu ci yoon bi rek ngir aji maanaam aj màkka wàcce na ndax li ngay def yi li ngay li nga bàyyi gannaaw nii moo ko ëpp doole te fu mu ne dem aji màkka te faatoo waxtu kenn mënu ko ndax Arabie Saoudi boo jëloon vol bi lu mu néew néew da def huit de temps diggante Dakar ak màkka foofu nag foo koy defee te yombul waxuma formalité yi waxuma boo génnee wàcc war a def say formalité bala ngaa génn lu mu dee nga def fa ñeenti waxtu juróomi waxtu foofa yëpp kon aji actuellement ci suñ Afrique gii te faatoo waxtu parce que kenn mënu ko kon maanaam julli dal na aj makka kon nga xam ne kon julli dal tudd baatu yàlla rek la mënta daan ndax wala zikrullaahi akbar bu ko mooyee la ngi ci des yëpp julli dal na leen waaye julli tabaarakallaahu nga xam ne daan na ponki lislaam yi yëpp jàllal bi ku lamal mbooleem ponki lislaam yi julli moomu moo doon jaamu yàlla gi matale jaame yàlla yëpp jaamu yàlla ja jaamam yàlla boo waxati dana jaamoo yàlla ci julli waaye boo ne asaka matut ci ñëpp woor weeru koor matut ci ñëpp joxe a aj màkka matut ci ñëpp waaye jaamu yàlla boo xam ne dafa matale jaamam yëpp ci jamaal yeeg nabaat yeeg xayawaan yeeg maanaam ruuxaani yu ne yeeg malaaka yeeg nit ñi genn jaamu yàlla kese la muy julli bu ko mayee boo waxati ñeen na koy def wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum loolu mooy yàlla boo xam ne kenn génnut ci muy julli kon nag julli foog na lool nañ ko fonk nañ ko toppatoo nañ ko gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax mooy jaamu yàlla boo xam ne yonentu yàlla yépp ci nekkoon yonentu boo wax rek daana julli boo jëlee yonentu yàlla ibrahim daana julli moom la alquran wax ne moo wax ne qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin kon ibrahima daana julli boo jëlee yonentu yàlla tabarakallahu suaybu dafa daan julli moom la nit a ñu naan ko asalawaatuka ta'muruka an natruka maa ya'budu abaa'una aw an am fi amwaalinaa maa nashaa'u innaka la anta haliimu rashiid kon yàqu maanaam Suhaybu daana julli yonentu yàlla Muusaa dafa daan julli moom ak xeetam wa moo tax mu waxoon banu Israayil ne maanaam ij'aluu buyuutakum qiblatan wa aqiimu salaata jël leen seen néegi jubale ko qibla da ngeen taxawal julli yonentu yàlla Ismaayil dafa daan julli moom la Alxuraan ne wa kaana ya'muru ahlahu bis salaati kon daana julli yonentou yalla ya isa dafa dan julli bam juddo sax lim jëk wax inni abdullahi atani al Kitaba. wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan ayyama kuntu lim jëk wa awsani bis salati wa zakati ma kuntu hayya sayyidina muhammad nak nag julli kat yi moy seen ilimaan mo jité won yonentou yëpp ci baytil maqdis ñi def juroom ñaari sappé mursalu lay nek ñatt ya anbiyaaw ya nek ñent ya mu jiite leen moom la yàlla wax ne ko wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha kon julli yonent yëpp dañ ko doon def moom julli nag yàlla digal nañu ko ci alquran ci juróomi anam bi ci njëkk wax nañu ne taxawal leen julli moo tax mu ne wa aqimu salaata ñaareel bi digal nañu ne dañ ko waxtu bañ ko sàggalee moo tax mu ne xaafidu ala salawaati ñetteel bi digal nañu ne nañ ko def ànd ak laabal ndox bu ñu amee ngànta ñu door a tiim moom la wax ne ida qumtumu ila salaati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi ñeenteel bi digal nañu ne nañ ko defee ca mbooloo ma su ngànta amee ñu door a julli yow kenn moo tax mu ne warka'u ma'a raaki'iin ñeenteel ba digal nañu ne nañ ko def sàmmante waxtu wa inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta bi ñu ko yàlla digalee ci juróomi anam yi nit ñi seen ngor seen dëgër bopp ak seen texeat yi ñu def ñeenti xaaj xaaj bu njëkk ba ne yow yàlla yaa santaane julli mais ñun julli woon gëmuñ julli julli wuñ ñooña abu jahlin mooy seen njiit mi alquran ne fala sadaka wala salla bu ko lëggee moom ak ñoom jiite woon ñëpp safara la ñuy tàbbi ci maa salakakum fii saqara qaalu lam naku minal musallin biram jeex na ñaareelu xaaj ba ne yow yàlla yaa santaane julli ñun ñu ngi julli maanaam gëm nañ julli mais ñun julliwuñ ñooña ku ko def yahuud yi ak nasaraan yi ñooy sa njiit waaye yonent bi moom la alquran ne fa xalafa min baadihim xalfun adaau salata wattabau shahawaati fa sawfa yalqawna gayyan ñetteelu xaaj bi ne yow yàlla yaa santaane julli gëm nañ julli ñu ngi julli mais ci ngistal bu ñu gisee ñu julli bu ñu kenn gisul rek ñi bàyyi bu ñuy jiitalee ñu rafetal bu ñu julli ñun kenn ñaawal mooy gis tànkat pire moom la alquran wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala lu tax mu ne na naasa mais wala a allaha illa qalila ñeenteelu xaaj ba nag mooy ñu ne nañ julli dañ ko taxawal ca waxtu wa defee ko ca mbooloo ma defee ko ca laabal ndox ga defee ko ca teewlu ga toroxlu ga waxtu ga taxawe ga ñooñu sayyiduna muhammad mooy seen jiit ñooñu boo ëllëgee ñooy tàbbi aljana li ñu tuddee nañ ca bokk moom la alquran ne walladina hum ala salatihim yuxaafidun ulaika humul waarithun alladina yarithuna alfirdawsa hum fiha xaalidun yàlla nañ bokk ci xaaj boobu bañ a bokk ki ñetti xaaj jëlee na ngeen góorgóorlu ci julli nit ku a doon bu dee ñi sang sang takk ay tànkam takk loxoom gas pax bi dugal ko ci biir bàmmeel la ñuy njëkk a seet mooy julli su baaxee ñu ne ka gis jërul seet baax na ndax dugg nañ ci biir julli bu julli baaxul ñu ne nag jërul seetaat yeneen yee kon julli mi gën a màgg moo baaxul ba dara mënta baaxate lu baax sax ñu ko kontante mbol da commencé dal moo tax kuñ dugal ci biir bàmmeel yonent bi nee na ñi la suuloon buñ doxee juróom-ñaari jéggu sax yow mooma da nga dégg seen yëngatu dàll ya su ko defee ñu teg la wëree fee julli su baaxee rek at nga bu julli yàqoo sa lépp yàqu na sa wóor sa koor ya yàqu sa joxe asaka ya yàqu sa dem màkk ya yàqu sa fonku sëriñ da yàqu sa jël yurdo wa yàqu sonn gi ngoom sonn keneen lépp dafay yàqu kon julli moo taxaw taxawaayu visa boo demee aéroport ba mën a wàcc ca Amérique ca Angleterre ca Espagne la ñu njëkk a mooy ndax sa sa sa sa visa bi baax na am déet bu visa bi baaxee rek ñoom dañuy jàpp rek visa ci passeport bu baax la war a mën a nekk passeport bu baaxee. dafay yóbbuwaale kayitu juddu dafay yóbbuwaale te identité bi yooyu yëpp kenn du la ko laaj kon nag moo tax bu ñu la laajee julli ji rek ji baax dañuy wax ne kon passeport bi duggaale na ca identité bi duggaale na ca kayitu juddu bi tamit duggaale na ca waaye bu visa bi baaxut ñu door a vérifier yooyu yëpp nag nga mujj yàqu. julli rek la yonent bi de leen ko seen doom yi bu amee juróom-ñaari at bu ñu amee juróom-ñaari at digal leen leen ñu julli bu ñu bañee julli ngeen bàyyi bañ am fukki at. bu ñu bàmmee fukki at bañ a julli yonent bi ne dóor leen leen mais dóor yoo xam ne du damu yàq du ñàkk du nàccal ceeb loolu rek ci julli rek la ko wax amul fenn fu mu ne bu amee juróom-ñaari at digal ko mu joxe asaka wala mu aji makka wala mu war weeru ko déedéet ci julli rek la wax juróom-ñaari at ñu commencé laa dóor ci fukki at ngir màggaaya julli tabaarakallaahu tamit ak fooraay ga kon nag julli gii yéen a tabax jumaa ju toll nii am ngeen dee jaamukaayu yàlla bu mag kon nag góorgóorlu leen ngeen di fees jàkka ji bu bu fajar jotee na ñëpp yeewu yee seen doom yi ñu dem ci jàkka ji julli bu ñu ko defee jàkka ji fees waaye nag borom kër gi gën a yées mooy waxtu wi jox rek nga jël sa kurus dem ca jàkka ja bàyyi sa doom yi ñii nelaw boo ëllëgee mënoo dugg aljaana di leen bàyyi safara yow la la yàlla sàmm loo woon kuy sàmm dara bu fanaanee àll nga fanaan àll dem wuti ko kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati la yonent bi wax moo tax kon ni ngeen di wooyee seen doom yi ci dem tool di wooyee seen doom yi ci reer ak añ ku manqué doo ubbi bool ba noonu ngeen war a woowatante seen doom yépp ñuy bokk dem ci jàkka ja loolu la lislaam santaane moom la yàlla wax yonent bi bu amul sëñ daara Cheikh Modou am ngeen jaamuwaayu yàlla nekk leen ay jaamukatu yàlla yu nangoo nekk ci néeg bii di fi julli di joxe waxtu yi ku fi dee ci dëkk bi li nga bëgg mooy ñu taxawal la fii ci buntu jàkka ji seede la lu nit ñi mën di seede ci wax bu duxul dëgg jàkka jee wax ne maa fi nekkal yàlla maay compte banque bi ñuy war a verser te kii man xaw ko ba muy màmm su fee ñëw dem ba tële ngeen nekk fii tarara bi bu ko defee nag jàkka ji arrière comme xar football la geneen jëmm nekk fa waaye dootul jëmm jot te dëkk bu ne jàkka ja ñuy jullee boo lëggee mooy soppeeku bato ñun mbooleem ñu jàkka ja ñu noon bato bi xoolee ana bàyyi diw kaay dugg ana yaay diw kaay dugg ana waxambaane diw duggal ku ñëw nag te jàkka ji xamul la woon rek bunte yi ñooy fermer seen bopp boo ñëwee doo foo dugg su ko defee kon bu waa doo dem xam jaar kon lu waaye mën a sonn lu dul julli loolu amul benn njariñ looy def boo ko boolee julli nag mu door a am njariñ julli mooy baax bi mooy asas bi mooy fondation bi boo tabaxee mu jëm ca kaw la ca tegu a baax waaye boo ca tegu ko teg tamit dara du mën a léegi nag jàkka joo dem ak lu mu rafet rafet ci zahir a rafet jàkka ñoo a nangam ak jàkka waaye fa tàkkusaan fekkee nga rus bu la fa julli fajar fekkee nga rus bu fa tusubaar fekkee nga gën a rus genn wàllu sàkk rek te ay paa rek dafay nekk daanaka nit ñi nekk ci seen soxla yi nga xam ne du mat mukk dafa góoma defaata góoma ku ko mën a matal nga nekk ci ay lagar lagar yi ba xëy dee fekk malaaka mi di la jël si nga ne ko ngaa gaaw law laa axartanii ilaa ajalin qariibin fa asaddaqa wa akun mina a malaaka mi ne wa lan yuaxxira llaahu nafsan idaa jaa ajaluhaa wallaahu xabiirun bimaa ta'maluun salaamu aleykum wa rahmatullaahi